الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله مبقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala moo ngi wax ak ñun ci qur'an mu ne walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون sunu borom subhanahu wa taala moo ngi ñuy ñaax di ñu soññ pour jumtukaay yi mu ñu may élément yi mu ñu jox ñu koy jëfandikoo bi ci jiitu ci jumtukaay yooyu yàlla defal doomu aadama yi tey te ñu bari ci ñun ñàkk koo jëfandikoo tax nu alku ñu réer mooy xel mbokk yi li ñu ëpp ci ñun da ngay fekk jumtukaay boobu yàlla jox leen muy xel dañuy dox di dem waaye xel maa ngi ci seen kër yi ñu bàyyi looloo tax naxaate bi bari looloo tax réer gi bari looloo tax njuumte yi bari looloo tax doomu aadama yi xamuñu lan mooy seen diine parce que amuñu xel loolu tax borom bi ne man yàlla subhanahu wa taala waajal naa lu bari ci ay jinne ak ay nit ci biir safara jahannama laa leen yóbbu ëllëg nit ñu bari borom bi nee na dina leen lakk lan moo ko waral moom borom bi su waxee lu mel noonu du ko bàyyi foog mu tont mu ne lahum qulubun laa yafqahuna biha man yàlla dama leen defal ay jumtukaay bokk na ci xol bokk na ci bët ay gis bokk na ci nopp waaye xam nga ne xol bët nopp te mooy dégg ñett yooyu bu ñu ànde xel doomu aadama boobu day jëriñu dootu réer ndax xol mooy denc mooy firi li xel di xalaat looloo tax yàlla subhaanahu wa taala xéewal gi gën a rëy gi mu defal doomu aadama mooy mu defal ko xel tey nag bu nu bàyyee sunu xel di demee sunu bëgg-bëgg wala ñuy demee yëg-yëg sentiment wala ñuy demee far dootuñu xool dëgg dañu ñëw rek far lu ko waral mooy ñàkk a jëfandikoo sunu xel loolu tax borom bi ne ñu bëri safara laa leen jëmale ndax ay xol laa leen may duñ ci comprendre ma defal leen ay bët duñu gis ma defal leen ay nopp duñu dégg sunu borom li mu tëje aaya bi moo ruslu mu ne ulaika kal an'am ñoo ngi mel ne ay rab yenn borom xam-xam ñu ne bi yàlla waxee ulaika kal an'am ñooñu ñu ngi mel ne rab borom xam-xam yi nee nañ rab yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla te ko yow sunu borom yaay borom asamaan ak suuf yaa moom lépp yaa bind nit binduñu waaye bi nga bindee nit binduñu da ngaa may nit loonu mayul muy xel am nan waaye ñun dafa tuuti dafa limité wu doomu aadama nag xelam amul fu mu yem yow yàlla nga def loolu ba pare yow nga ñuy xas naan bi nga xasee doomu aadama nga ni ko dafa mel ni nun aaya bi daal di yokk yàlla mu ne balhum adal ñoom sax ñoom ñoo leen gën a réer yéen rabu àll yi moo tax yàlla ne summa radannaahu asfala saafiliin xool leen tey rab yi lu ñu doon def démb da nga daan fekk xaj bu góor war ci kaw xaj bu jigéen ci mbedd loolu kañ ngeen ko gëj a gis léegi doomu aadama yi ñooy ko remplacé bi ko doomu aadama yi jëlee rab yi daal di mer daal di grève ne ñun dootuñu ko defati bi ko rab yi defee bi ko doomu aadama yi jëlee ginaar yi bàyyi ko doo sax gis léegi ginaar gu ko def def yaramu neen rab moo ko doon def bi ko doomu aadama yi nangoo ci rab yi rab yi dootuñu ko defati béy bu sax béy bu njëkk boo ko gisee day def ni génn gi ci kaw léegi daf koy wàccee ndax doomu aadama yi ñoo ko nangu ci moom génne seeni awra ci biti doomu aadama bu génnee awraam ci biti lu ko tax parce que jëfandikoowul xelam soo déggee ñu ne yow da ngaa rafet doomu aadama ñu ne yow day da ngaa rafet dafay fekk waa jooju rafet dafa sol yére parce que yére mooy rafetal nit yàlla nee na damaa wàccee yére pour ngeen rafet yéen doomu aadama yi waaw boo simmee ko tey boo taxoon boo yeewu woon fajar nga ubbi sa buntu kër nga fekk ku def yaramu neen dung nu ko yaayam juree nga ubbi rek mu joxoñ la ne la asalaamaaleykum da ngay daw dugg ci biir wala da nga koy nuyu li xel nangu mooy da ngay daw dugg ci biir kër gi parce que da nga naan dajewu maa ngi nit lu tax parce que dafa def yaramu neen kon def yaramu neen ku ko moom mooy rab doomu aadama moom moomul loolu su door su nit ñi nangoo tey mel nii nu mel ci njaay àll daf yu bon naan sàngara violence rayante ñu dem ba dootoo xam ne jullit lu dul nga ni ko noo tudd su fekkee góor mu ne la Abdallah bu dee jigéen mu ne Fatima nga doog a xam ne kii ab jullit la lu ko waral mooy bàyyi xelam wa hinama xalaqa allahu taala al insaan karramahu wa rafaa qadrah bi azami nicmatin wahabaha iya ala wa hiya nicmatu l aqli allahu jalla jalaaluhu sunu borom bi mu bindee nit daf ko teral yëkkati dayoom ba ci kaw darajaam yàlla may ko lu mu mayul kenn ci kaw suuf yàlla subhaanahu wa taala xéewal gi gën a rëy gum defal doomu aadama mooy xel al aq wa jaala allahu taala kamal arrajuli muqtarinan bi kamali aqli yàlla subhaanahu wa taala defal nit defal góor jigéen mat goo xam ne biñ koy nat ñu ngi koy nattee ci xelam doomu aadama bu xelam matee rek ñu ne kii mat na doomu aadama bu amul xel ñu génne ko ci loolu moo tax gis nga islam bi muy def di tànn ku mesure ku war a jaamu yàlla def cee boole xel nit bu amul xel ñu ne rufia anhul qalam ñetti nit yàlla yëkkati na ci ñoom xalima gi ci hadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñetti nit kenn du leen bindal bàkkaar al majnun hatta yafiq ku dof ba mu wér parce que amul xel kon xel la yàlla subhanahu wa taala di nattee matuk nit suñu nattee nit xelam mat li war ci jaamu yàlla yépp nekk na ci moom benn buur ci buuru islaam yi dafa toog ci xilaafa gi nit ñi ñëw di ko ndokkeel di ko ndokkeel di ko ndokkeel di ko gërëm di ko ñaanal benn délégation bu jóge woon Iraq ñu daal di jiital benn xale bu ndaw ne ko yow yaay amir bi boo demee yow yaay ndokkeel buur bi délégation boobu bi ñu duggee buur bi ne leen ana seen amir ku leen jiite xale bi daal di jox dem ci kanam mu ne ko dellul ku la mag na ñëw xale bi ne ko amirul muminin mbir mi mbiroon mbiroom bu doon mbirum mag la doo fi toog ndax xeet bi am na ku la mag mu ne ko yow yaay yow yaay kilifa gaa yi mu ne waaw mu ne ñëwal wax parce que xelama mat moo tax gaa yi jiital ko ndeke mbir mi du ay at mbir mi du kàttan mbir mi xel la ku ëpp xel mooy ki yàlla subhanahu wa taala gërëm kooku ngay fekk muy ku yeewu kenn du ko nax lan moo tax tey Sénégal ñu nax leen parce que dañoo utiliser wul seen xel dañoo taxañ seen xel teg fee koo wax rek mu ne waaw loolu kay bu koy bu neexee yàlla mu def ko boo ne woon benn yaay waaye léegi boo demee di nga fekk sa saal añ nga añ danaan dëgg la mun na nekk mun na nekk boo ko ne woon léegi boo demee sa ran la nga fekk fa un million mu ne mun na nekk boo ko ne woon suba mun naa la yóbbu kaw asamaan mu ne mun na nekk woy bul weddi bul weddi yàlla moom moo am yàllaay maye bul weddi xam ngeen ne loolu munta nekk Omar da doon wax fekk waaye benn waaye toog ci biir jàkka ji di naafi la Omar jël yaram caw ko mu génn gars yi ne Omar bu yow li nga def baaxul di mu ne lan la ñu ne kii moom fi lay nekk di naafi la rek di julli di woor Omar mu ne kan moo koy dundal ñu ne dëkkandoo yi bu ñu desalee lekk ñoo koy indil mu lekk Omar mu ne kii day yàq dëkk bi su xale yëpp toogee yaafuus yaccaaral kenn liggéeyiwul fu dëkk bi jëm yàlla waxul loolu fa iza faraxta fansab la wax soo sëlmalee demal nga liggéeyi ci kii ñi koy dundal ñoo ko gën kenn ci yéen bu mu toog ci biir néegam yëkkati ay ay yàlla loxoom naan yàlla wërsëg mu xam ne asamaan laa tumtiru zahab asamaan du taw or de Sénégal nag boo fi ne asamaan mun na taw or nga de ku ne dëgg la wallahi dëgg la bu ko diw ñaanee mu ñëw léegi waaw bu kenn weddi ñu ne waaw dëgg la kay loolu moo tax waa Sénégal ñu nax leen loo leen wax rek ñu gëm ko waaw yàllaay maye yàlla lu muy maye maye am na lu mu dul maye asamaan du musa taw or nañ ñaan yàlla toogal ngay ñaan yàlla or bu jógee kaw asamaan nga seen ndax di nga am wala toogal nga nekk góor ngay ñaan yàlla nga jur doom mais yàlla yàlla naa ëmb waay ma am ñaari seex nga seen ndax yàlla dina la ko may loolu du sunanullah fil ard nit day utiliser xelam lan moo tax sunu diina ñu wàcc ko parce que utiliser wuñ sunu xel bu ñu jàppoon sunu xel rek nekk ci jàmm ixwatal iman xel mooy nit nanu xam ne xel moom la yàlla defee nattukaay bi képp ku am xel fa man naalahu naala xazan waafiran képp ku am xel am nga cër bu rëy ci kanamu yàlla subhanahu wa taala bu la yàlla may waaye képp ku ñàkk xel ñàkk nga aduna ñàkk alaxira loola tax aaya alquran bi sunu borom subhanahu wa taala naan wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fi lbarri walbahr wa razaqnahum min altayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila qala badu almufassirin mayyazahum binnutqi walaqli waltamyiz fi lfatxi lbaari sunu borom subhanahu wa taala ci aaya boobu muy wax ne ñuy wax ne yàlla nee na maa teral doomu aadama man yàlla maa ko teral doomu aadama maa ko teral man yàlla maa ko yëkkati maa ko teral ci géej gi teral ko ci jéeri ji man yàlla maa ko daganal lépp lu neex lu dagan lu teey man yàlla maa ko gënal ci mbindeef yi waram xam-xam bi ñuy firi aaya boobu lu ñu wax yàlla moo ko gënal doomu aadama di wax rab yi duñu wax doomu aadama am xel rab yi am tuuti ci xel doomu aadama mën a ràññee rab du ràññee mbokk yi wala yenn ci rab yi duñu ràññee mu ngoog su ko defee doomu aadama na xam ne xelam la ko yàlla jox mu mun cee niitoo diineem niitoo diineem lun la wax rek da nga ko war a nat xool ko ci sa xel lii lan la ci yàlla wax lii lan la ci yonent bi wax nga jëfe waaye ñun lun nu wax rek ñu ne dëgg la bu benn waaye ñëwee ne am na ku naaw ci asamaan waaw ñu ne dëgg la kay xoolal jibril ni mu malakal mawti ni mu toll malakal mawt su ay jullit ci Sénégal gëmee ne malakal mawti moomu am na benn waay bu ko jàpp sone ko toj bët bi tëf bët bi toj ñi mu reyoon ci bis boobu yëpp seen ruu yi daa di wadd ndax pañe bi mu reyoon ruu pañe bi mu defoon ruu yi mais sëriñ bi dafa ñëw rek fekk taaliba bi dee mu ne wax ñu ne ko kii de daa dee mu ne xaar leen ma ñëw rek mu naaw mu koj malakal mawti septième asamaan ñoo rek sone ko ne ko tël kurpeñ bët bi daal di tuuru pañe bi mu yoroon daal di wadd ruu yi daal di naaw daal di dellu si waat ci ruu yi ñi deewoon bis boobu yëpp daal di dékk sëriñ bi daal di wàcc ñëw taalibe bi toog ne waa nii la kay ñu ne gëg gaa yi ñu ne est-ce que ñu yuuxu est-ce que loolu su ko nit gëmee mbokk yi malakal mawti rey ku toll ne Seydina Muhammad kenn tojul bëtam da ngeen fàtte loolu kan moo rey Seydina Muhammad ku dul malakal mawti kan moo rey Aboubacrin ñaareel ku gën ci xeet wi omar ibnul xataab usmaan ibnu affan ibrahima xalilullah ndeysaan keroog bi ibrahima war a faat malakal mawti ñëw ne ko ibrahima jeexal nga yàlla nee na naa la jël si mu ne ko yàlla moo waxoon sama xarit la de doo dem nga wax ko loolu nga fàttali ko allahu akbar yàlla moo gën a xam malakal mawti dellu ci yàlla mu ne yàlla ibrahima nee na de yow xaritam nga ba pare yaa ngi koy rey atara xalilan yumitu xalila foo gis xarit di rey xaritam yàlla mu ne malakal mawti demal ci ibrahima nga ni ko atara xalilan yakrahu liqaa xalili soo demee nga ni ko ibrahim ndax xarit dina bañ a dem ci xaritam allahu akbar ndax xarit dina bañ a dem ci xaritam tontu bi mooy déedéet kon réalité yi ñuy dund fii li ko waral rek mooy dañoo abale suñu xel ab jullit na yëg ne source l'islam yi ñett kese la alquran sunna ijma mbokk yi loo fekkul ci alquran wëri ko ci sunna yonent bi soo ñëwee ci sunna fekkoo ko ci xoolal borom xam-xam yi lu ñu wax soo xoolee fukki borom xam-xam ne mbir mi nii la juróom ne nii la defal lu fukk yi wax ñooñ ñooy ijma noppalu nga jeex na waaye fii sunu problème yëpp mooy sunu xel la ñu abale gars yi bu ñuy dem dañuy bàyyi xel bi ci biir kër gi ne ko ñoo ngi ñëw xaar ñu moo tax bu nu demee bu nu demee amul lundul def amul lundul gëm amul lundul gëm ndax lan sunu xel àndul ak nun loolu tax ngay dégg lu nekk ci biir réew mi lu nekk rek di nga ko dégg lu nekk wallahi ubbi leen rajo yi taal leen seeni kaset seetaan leen télévision yi di ngeen dégg loo xam ne di ngeen di xam ne fii dong lañ koy waxee mu nekk jàmm fii kese amul feneen lu ko waral mooy abale suñu xel jullit bu mu bàyyi xelam ginnaaw li la yàlla may nga mun cee ràññee sa diine mooy xel وجعل ربنا سبحانه وتعالى العقل مناط التكليف فلا يكفل إلا عاقل فإذا غاب العقل سقط التكاليف li tax doomu aadama ñu ne la yow war ngaa jaamu yàlla yow day toll nga ci jamono jaamu yàlla waxtu jaamu yàlla mooy sa xel soo amee xel rek takaalif yi islaam yi farata yi la yàlla teg yow jot na nga def ko amoo xel ñu ne wàcc na la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ne rufia rufia alqalam an salaatatin an majnunin hatta yaqif wa an sabiyin hatta yudrik wa an naimin hatta yastayqiz rawahu buxaari yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñetti nit kenn du bind seen bàkkaar ñetti nit ku dof xanaa mu wér kuy nelaw xanaa mu yeewu xale xanaa mu mun a ràññee ñetti ñii kenn du leen bindal bàkkaar keneen ku dul ñii xalima gaa ngi tegu boo defee rek ñu bind ko kee ngi ndeyjoor kee ngi càmmoñ maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqib atid mbokk yi al aqlu zinatu rijal xel mooy taaru góor ñi al aqlu zinatu rijal wa kamalul jamal xel mooy taaru nit xel mooy ta mooy rafetal nit xel mooy tax ñu yëkkati famille xel mooy tax ñu daaneel famille famille bu fa amee ku am xel ku rëy xel ku ñaw ku muus nekk borom xam-xam fu mu yëkkat fu mu génn ñu ne kii de mooy diw ci famille diw la bokk ñëpp fonk famille boobu waaye xel mu ñàkk ñàkk xel mooy tax kenn du wet nit ñàkk xel mooy tax ku bokk ci famille boobu nga def yu doyadi ñu ne kii xanaa du nit kii xanaa dafa ñàkk xel ñëpp doyadil famille boobu إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وفي معجم الكبير للطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الأقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزتي وما خلقت خلقا أعجب إلي منك بك بك أعطي وبك الثواب وعليك الإقاب سندمي كتير بتدو المعجم الكبير bul imaamu tabaraani yi danañ fa fekk abi umaama di ñu nettali waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent bi nee na ba yàlla bindee xel bi yàlla bindee xel ba pare da ko ne xel ñëwal xel ñëw mu ne ko dellul xel dellu yàlla ne ko giñ naa ci sama màggaay musuma bind lu mel ne yow ci lu ma yéem yow xel musuma sàkk lu mel ne yow lu ma yéem ci xel ci yow xel laay joxe ci yow xel laay fayee waaye ci yow xel laay mbugalaate ëllëg yowmal qiyaam ci beneen hadis bu ñu al imaamu alxasan albasri di nettali mu ne inna allah azza wa jalla ma xalaqa al aqla yàlla subhanahu wa taala bi mu bindee xel da ko ne ñëwal xel ñëw mu ne ko dëppal mu dëpp mu ne ko wa izzati wa jalaali maa xalaqtu xalqan ahabu ilayya mink yàlla ne ko giñ naa ci sama màggaay musuma bëgg mbindeef mu ma bind mu la raw yow xel li ma bind yow laa ci gën a bëgg waaye ci yow xel laay mbugalee ci yow xel laay fayee kon war nañu laaj man humul uqala ñan ñoo ñu am xel ñu ne al uqala salaasatun ñi am xel ñett kese lañ ñett ñi ñoo am xel kan mooy ki ci njëkk man taraka dunya qabla an tatraka mooy ki xëy bàyyi aduna balaa aduna di ko bàyyi mbokk yi ndax xam ngeen ne aduna dinañu bàyyi mbaa loolu ñu ngi koy sóoraale lii ñuy daw yépp di kër kër yi lii nii sonn yëpp yàlla mi ñu fa teg ci ginnaaw ndax xam nañ ne àdduna dina nu bàyyi kon ku muus bàyyi la àdduna balaa àdduna di la bàyyi ku am xel na la leer ne ay guddee ngi ñëw bëccëg a ngi ñëw àdduna dina la fi bàyyi continue katabal mawtu ala al xalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal أين من شادوا وسادوا وبنوا أين فرعون وهامان xalakal kull falam tuxni alxulal ki muus mooy ki fi bàyyi àdduna topp yàlla bàyyi àdduna balaa àdduna di la bàyyi kooku mooy ki muus kooku mooy ku am xel ñaareel wa man bana qabrahu qabla an yadxulahu mooy ku tabax bàmmeelam balaa mu fay dugg tabax sa bàmmeel balaa nga fay dugg fii nag ku dee rek ñu tabax bàmmeel bi boo demee ci armeel yi da ngay fekk armeel boo xam ne dañ ko tabax ba ci kaw def ci karo marbre léeg-léeg ñu tabax bàmmeel bi étage léeg-léeg nga gis benn 15 sur 10 15 sur 10 laa wax de ci biir bàmmeel yi yenn saa yi nga gis fa 15 sur 10 benn nit moo ko moom ñu def ko terrasse allahu akbar def ci ay fleur bàmmeel bi nekk ci digg bi xanaa xamu leen bàmmeel buñ ko tabaxee yërmande yàlla dootu ci wàcc bàmmeel kenn du ko tabax yonent bi daf ko tere bàmmeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere ku ko laso bàmmeel yonent bi dafa tere ku dëpp ci kaw ku muur ci kaw da ngay gis bàmmeel dañ koy tabax ba muur ci kaw daal di dër ci kaw fi nekk waa ji bu doon génnaat du mën a génn ndax dër boobu moo koy téye dañuy dal ci kaw def ci dal yal na nu yàlla dimbali dañuy tabax bàmmeel yi te duñu tuub fa kam min quburin tubna wa ma tubna nit day defar bàmmeelam balaa mu ciy dugg kër gi balaa ngay toxu da nga koy defar fi mu nekk nii foo jëm rek da ngay defar balaa nga yegsi waaye bàmmeel rek la gaa yi dul defar yàkkamti dem kon ku am xel day defar bàmmeelam balaa mu fay dem ñetteel ci ñu muus man arda xaaliqahu qabla an yalqooh ki am xel mooy ki ut ngërëmal boroomam kontante boroomam balaa muy dajeeg boroomam utal sa ngërëmul boroom balaa ngay dajeeg sa boroom allahu akbar tey da ngay gis mbindeef yi la ñuy ut seen kontante mbindeef yi da ngay gis koo xam ne lu ko benn waaye wax defal mu def su ko yàlla nee defal mu bañ di kontaanloo nit bàyyi borom nit ñi di kontaanloo mbindeef bàyyi borom mbindeef yi ku am xel nag day kontaanloo boromam balaa muy dajeeg boromam. dafa am ci jamono benn dof bu tudd Bahluul ñu jàng taarixul islam ñu bëri xam nañ Bahluul dafa bokkoon jamono ak buur buñ naan Haaruna Rashid benn bis Haaruna Rashid ànd ak mbooloo mi nekk ci kaw fasam mu romb bàmmeel yi mu seen dof boobu ñuy wax Baxluul tëdd ci biir armeel yi njaganaayoo bàmmeel yi Haaruna Rashid ndeysaan bi mu xoolee Baxluul mu ne ko yaa Baxluul yaa majnuun mata taqil waa yow baxlul yow dof bi kañ ngay am xel bi mu waxee loolu rek baxlul daal di jóg daw daal di yëg ci garab yi benn ci armeel yi ci kaw daan ne ko Haaruna Rashid yow buur bi yow Haarun anta al majnun wa ana al aqil yow moom yaay dof man mi maay ko wér ah buur bi daal di ñëw ba tiim garab gi gis ko ci kaw mu toog mu taxaw toog ci kaw bant yi buur bi ne ko yow baxalul man ngay wax dof mu ne ko waaw ndax dof nga mu ne ko nan laa nekkee dof allahu akbar allahu akbar ana al majnun anta allazi tajlisu ala al maqabir mu ne ko man maay dof buur bi xool ko ci kaw ne ko yow man maay dof wala yow yaay dof man mi dëkk ci étage bi ci sato bi ma dëkk ci palais bi yow nga dëkk ci armeel yi nga ni man maa dof mu ne ko waaw yow yaay dof bi mu ne ko lu tax maay dof mu ne man damaa xam ne fii ma nekk fii la ñuy mujje fee nga nekk day ràpp day jeex yàgg yàgg yaa may fekk si fii waaye duma la fekk fee kon kay xam nga yaay dof bi man fii ma nekk du jeex de yéen ñëpp fii ngeen ñëw te yéen fee ngeen nekk day jeex kër yëpp ay mokk kon xam ngeen ne yéen yéen ay dof yi rek buur bi tiit mu xam ne waa ji li mu ko wax dëgg la allahu akbar wallahi dëgg la lii ñu topp rek di daw wallahi danañ ko fi bàyyi fee ñuy bañ a dem te mooy armeel yi laa budda nu dem su la neexee su la la xaree buur bi jooy ba sikkim bi tooy mu ne ko baxluul mu ne ko waaw loo may dolli mu ne ko xam nga lu tax ngeen bañ a jóge fii da ngeen koo dundal xam nga lu tax ngeen bañ a ñëw fii ci armeel yi mu ne waaw mu ne da ngeen koo ràppal fii ngeen dundal mooy kër yi ngeen dundal armeel yi nag da ngeen koo ràppal dara yóbbu leen fa dara dara nekk fa mu ne ko waa dolli ma mu ne ko doy na la téere yàlla bi waar ma mu ne ko téere yàlla doy na ci yow soo bëggee ku la waar rek jàpp jàngal alquran waaw jarul ma lay waar yakfika kitaabullahi azza wa jal qaaruna haarut qaala haarun alaka hajja waaw yow baalul léegi ndax am nga soxla ma faj ko ndax am nga loo bëgg ma defal la ko man buur bi mu ne ko waaw am naa ñetti aajo indi salaasa xaajaat am naa ñett su fekkee lool rek laa bëgg nga defal ma ko bëgguma leneen mu ne fàttalub laajal lu la neex mu ne ko ñetti aajo kese laa am allahu akbar mbokk yi tey kenn ci ñun bu ko président la république waxoon dem hôpital laa fanaan Mariam Faye Sall moo fa ñëw ndeysaan ne day jàppale si nit ñi nit ñi di xëccoo di ko buuxante ba ñu delloowaat ko ci biir oto bi mu ñibbi ku weddi waa laajal waa Dantec wallahi lazim mbokk yi tey kenn ci ñun bu ko président waxoon waxal loo bëgg ma defal la xoolal ba baxluul kii ñu ne dof la buur bi ne ko waxal loo bëgg ma defal la mu ne ko bu njëkk bi bi ma bëgg nga defal ma ko anta zida fi umri yokkal ma samay at mu ne ko ñaareel mu ne ko antak fii nii min malakal mawt bu malakal mawt ñëwee na nga ñëw nga défendre ma bu ma dee de bu ma laal allahu akbar allahu akbar salaasa xaajaat anta zida fi umri yokkal ma sama at mbokk yi kan moo mën a yokk at Haaruna ne ko loolu mënuma ko laa aqdiru mënuma ko mu ne ko anta amini min malakal mawt aar ma bu malakal mawt ñëwee bu ma dee mu ne ko laa aqdiru mënu ko mënuma ko mu ne ko anta duxilanil janna nga dugal ma al janna mu ne ko ñett yi mënuma ci benn mu ne ko faalam anta lasta al malik wa anta al mamluk faalam ginnaaw mënoo lii bul waxati buur nga yow doo buur buur bi mooy kii dund te du dee ki mën lii mooy buur yow doo buur ndeysaan faalam lasta al malik anta mamluk xamal ne ndeke kon yow doo buur moomoo dara dañ laa moom kon bul waxati maa moom ndax yow dañ laa moom na nga xam ne mënoo ki mën mooy yàlla ndax ñett yi benn nga ci mënu mbokk yi ndax am na ku mën a guddal suñu fan waaw Sénégal boo ko waxoon léegi bu benn waaye ñëwoon fii léegi ne man ah loolu ngeen di gis ci rajo yi ñu ne kii moo mën lépp day guddal fan di yokk wërsëg man dégg naa sax ñuy wax di wax ba ne kii day yokk awra day yokk awra boo ko fayee mu yokkal la sa awra la ilaha illa allah xoolal xoolal nit ñi fu ñu toll yokk awra waaw bu ñu yokkee sa awra foo jëm ku ñu yokk sa awra léegi ba mu génn sa tubéy foo jëm nañu utiliser suñu xel nit lu muy dee awra bu gudd bu yàlla xamoon ne loolu baax na ci yow du la mu mooy la ko mu dafa la nga yor ba su fas waaye yàlla xam ne yow nit nga lii moo baax ci yow mais nit ñi ñàkk utiliser seen xel dama yokk wërsëg da ngay dégg ci rajo yi kuy faj ñu ne day yokk wërsëg kooku bu mënoon yokk wërsëg du yokk wërsëgam tukulóor yi nee nañ allah du sina nafan no ummutaa koy hoore joomum musibe fulɓe ina wiye lamɗo goto omo wiye haruna rachid o tawi ɓe wiyaten hen saahaji ɓeɗo ko hangaɓe ɓe tawimo o tawi kangaɗo ina leli e bamule ɗe o wirtimo o wimo bahlul kangaɗo kangaɗo o dogi ngabbi e dow lekki wimo an lamɗo o an haruna rachid ko an woni kangaɗo o ko min woni celluɗo o kanko lamɗo o mo wonno e dow puccu o ari ha e les lekki hi o telli o wimo ko holko tagui mbiɗa min komi kangaɗo o wimo holko tagui ka kangaɗo so tawino aɗa selli koɗo gonmi ɗo gurnata wona aɗa wurna sima aɗa wurna étage uji ko ɓoyɗa ɓoyɗa ko fof ma tella e galle ma o gaddana gaddeɗa ɗo ɗo lelimi ɗo kono kay ko an woni kangaɗo o a añi arde ɗo saabu a andi a waɗani ɗo haydara a añi ummade ɗo saabu a andi ko dañnoɗa fof ko ɗo waɗɗa kono kay an woni kangaɗo o allahu akbar wallahi o haali gonga holko tagi hande añɗen mayde sen wiyama mayde tan goto fof huulo par ce que en gandi en mbaɗani toon haydara yow imam ali seydina ali ñalawma ndewo fiya paaka e reedu nden so neɗɗo yuwama médecine ala hedde ni ɓe addoy to docteur o docteur o so ari o yarnete kosam so yarnima kosam so kosam ɗam yalti ɗo juwaɗa ɗo tan ɓe anda ka maayowo nde o yarna kosam ɗam kosam ɗam yalti ɗo yuwa ɗo ɓe andi ko maayowo tan o wi fustu wa rabbil kaaba mi malama mi malama fustu yewoma andi ko maayo o kono o wi mi malama saabu ko to o wurni o wurnani ga lamɗo o wimo bahlul ɓeydenam o wimo yonima deftere allah nde so tawi aɗa yiiɗi waajede aɗa yiɗi hulde allah deftere allah nde nani ko allah haaldata e ma wona goɗɗo sa yiɗi hulde allah janngo alqur'an o wima mbeɗa aɗa jogii haaju mi safranma o wi mbiɗa jogii haajuji tati holko woni haajuji ɗi o wi ɓeyda gurdamam ɓeydana kam gurdam ɗum ɗon so tawino ko hannde sénégal kalɗa wiya ngare mi ɓeyda gurdam ɗam yimɓe fof doga ara allahu akbar sa yaltino jamma tan a ari e radio walla e télé a wi komin ceerno kaari mbiɗa hoɗi nokku sangam kala jiɗɗo gurdam mum ɓeyde yo ar wallahi yimɓe ɓe soɓe fini subaka ɓe ara e ma o wimo ɓeydenam gurdamam o wi mi wawa o wi so malakal mawti ari ina warami won heedam takkoye banggam kada malakal mawti wardimi hol bawɗo ɗum beele ene jogii e dow leydi ba wawɗo jaggude malakal mawti o wimo tata ɓigal ngal jinmi nanna kam aljanna o wi ɗiɗo guete ɗe tati foof mi wawa o wimo andu a wona laamɗo kon kan ka laamaɗo andu a wona laamɗo ka laamaɗo holmo laamima allah ndeke kon a wona laamɗo andu ka jeyaɗo a jeya holmo jeyma allah mbokk yi ñoo ngi sàkku ci mbokk yi inchallah buñ jullee ba pare dañu yor benn malaat boo xam ne barki démb la ko benn waaye yëkkati rek daal koy dóor fii ci suuf damm loxo bi démb lañ koy yóbbu hôpital ñu war a opérer loxo bi daanaka maa ngi ko bàyyi bloc ay minuit ci guddi maa ngi ko bàyyi bloc pour ñu opérer loxo bi ordonnance yaa ngi nii ma indi incha allah bu nu paree julli lu ci waay mën rek mu jàppale ci xale boobu pour ñu faj ko incha allah bi iznillah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله محمد